comme tout Sénégal dans les eaux à Guinaw Rail comme tout Sénégal je sais que ñëpp amuñu jot mais vous avez vu le pont du terre tey lum ñu causé à Guinaw Rail maanaam pont wu terre bi moom moo naam rag ziar naa ne maître ah loolu tax salaamaaleykum dinaa ne dañ koy wax baa bëri na kon Paa Ngiraan ndox kese la ndox maa Lu dañu njëkk a dem ana gaay dañoo ay kon xam nga dama dox waal mu sey daal ñoom bañ falee waal ba tamit ñoom taw ñu ne taxaw mën a gën a béy bu ma bu ma bàyyi. naan ko ah naan ko yan doxu laay doxu tee moo toj wut ci pañ. Muchas gracias. c'est à chaque fois quand même. Faut arrêter. Hein? Non. Ngeen fay. Moo fi seede. Ki day ñëw yaa ma gën a xam. Ila ma. Ala mooy bi ñuy dugal ma bàyyi. Ah. dégguma la gën yow mer mer. xale yi eh, ñoo gën a bañ ma daanu te yéen sax yéen yéen a bopp ah non maa jàmm ngeen am eh, seen seen ndox maa ngi yëg maa yëg moom na tey salaamaaleykum maa jàmm na ñëwal. Allahu akbar bon Gambo waaw Fadi léegi fii la ndox mi. fee fee mer mer mi ngi ne. non fii yëpp day génne ndox. ñëwal. départ bi départ bi fee ci kaw la. daa am pax bu nekk xoolal yéen koo baal yéen koo baal yéen koo baal yéen koo baal daa am pax bu dugg doon pax mooy nekk dafa xool. nga defar benn paire par exemple xoolal sama loxo sama tànk xoolal sama tànk ah lii nii jaarul paire bi mooy génne ndox mi muy dugg biir ginnaaw raam et de ça comme ça tout Pikine tout Pikine nii lañ mel. tout Pikine.

la racine du mal est ici. kii moo ñu rey kii xoolal kii moo ñu rey pax bii ak pax bee moo ñu rey. dama nekk di xool lii. Hmm.

bul wuy waat kenn. alors fu mu nekk nii voilà waaw ñu koy léegi rek. bii lii mooy indi orobo. lii mooy indi orobo. lii lépp. lii lépp mooy kër yi ginnaaw raay ñëpp tuxu nañu. léegi ginnaaw raay. ñëpp tuxu nañ parce que kambu teer di dox bu nekkee dafa bàyyi ko noonu ma ne ko waaw mais lii lii man de gisuma ko woon bàyyi ah. eh, bi yëpp la lu gën a pour éviter lii il faut ñu gaaw ut ay saaku suuf ah. sotti ko ci planté ko jéggi dem ci ginnaaw raay bi mhm. fatt yoon boobu noonu muy daal ñu bàyyi leen ko ci kaw raay bi parce que amuñu beneen solution parce que ñoom boo leen woowee mooy zéro duñu génn léegi délégué délégué nañu uti ay saaku suuf léegi fatt si loolu moom mooy fay moom saaku suuf daal moo ci gën moom Dame, bay dame. Nañ eh xoola maam Diar. Ci ñu mën ñoo tax di leen xaar soñ ba. Waa léegi xaadim lii dañuy wut ay sol ko ci bu ñu jëlee. Ana Malick, ay ñu

nappeel ñëw ba pare nappeel ñëw rek. mais xaalis Thank you. xam-xam doo ngi dee. xëy na mënu ko tëj ñu ngi ñoom camion suuf bu ndaw. raay bi moo indi problème. ah. ah. Mm-hmm. ñëw ñëw waaw waaw. eh Mor. eh Mor. waaw waaw Mor Mor aywa. xamu ñam bi. yéen a ko gis nii raay bi raay bi moo daan yàq kër yëpp. xamul mbuus. mbuus Mor Touré. Mor même mbuus waay. sama bu weex ah Mor. ah Mor de damaa jaaxle. dama Mor. eh non oh, ah. bàyyi ko machine ba machine yee pare bi. mais il faut benn machine. xaaral xaaral xaaral dama dama jàpp dama mu ne lan. ah mais man bu ko bu ñu waxee fii. jox tamit du moom surtout loolu. Hmm? surtout loolu. moo war a joxe non mais xoolal bu xool loolu. enquête non si enquête. mais am am bii booy booy booy daañar war nga soxla dafa soxla. ginaaw waay lu mu am ginaaw waay ko tax a jóg xaalis ak yeneen

ah yéen tam ay ah yow tam ay ay man mi ñu sonn man ma jaaxle waaw maa ngi ziar ba jàmm rek. dama ne la waaw mais mais bàyyi leen na ñu xamul ñuy dund lii ñu nekkee ku fi Afrique ma jàmm ak sama woote rek ay machine ñu nekk loolu da ay machine joxe di ko waaye état bi état bu démissionné ci ay kon émoré loola la eh, ubbi leen canal yi parce que am na Yeah. ñii nga jëlee jënd na ñoom tey ñu ngi nekk. jëloon loolu. gannaaw gannaaw raay amul meer député la am. man Diallo Fall moom wàcc ci terrain bi. di ñu jàppale di wër di xool ndox yi vraiment vraiment. Hey, Minute Say! Minute Say! Thank you. tëj baa nag léegi. Malick Ba nañ ko woo mu indi ñu camion suuf Malick Ba nañ ko woo mu indi ay camion suuf mais ñu dem pour pour fàtte bi ci terre bi mënuñu wut saako parce que koy tibbee su ma gisoon suuf bu ñu mun jaay sax jënd ko comme ça ñu fàtte tur boobu. leen di ngeen ma rey nag bàyyi leen jàpp di ngeen ma dee damay daanu fan soo ma jàppee damay daanu doomu dèjà bëri na yéen maa leen gën a maîtriser ndox mi déedéet dama koo tàmm ndox rek sama mbiram rek ah bu jumaan la eh ñii da leen fay ñii tur leen ñii ay conseil municipal ñii lañ fal sama maa ndox mi dugg ci kër gi rek al ah ay néeg ñii mi ngi nii ko ci kaw étage am laa def baaboon nga may boole baax xam nga li ko wax

par ma génn yem ci yow. maa ngi nii walaay walaay walaay. walaay dëgg la. waaw yëpp yi métti na mais nag dañ ci ànd dañ ci ànd ak yàlla. waaw yàlla baax na parce que lii rek vraiment doy na waar daal. ginnaaw raay moom il faut état bi ma koy waxee lii machine bi rek Allora? Bene, bene. Ma la casa? È eh, acqua? Vuoi che sei intubata adesso? Eh, ah. Vuoi che sei intubata adesso? Amir, xam nga ni dañ ko war a dañ ko war a jël dañ ko war a jël ah dañ koo war a dër dañ koo war a dër def ko comme ni nga. waaye. suñu kër gaa ngi nii gis nga. xool ko ñu faa wala ci doon kii yow. eh xool na yoo faay. xool yoo faay. Mais, qu'est-ce que tu as mis à vos poids? Donne ici, là. Mais, mooy intérieur ñëwal mooy intérieur bu des la waaye ñëwal Pikine gépp yàqu na. mais nag wax nga yéen a ko jël saa de benn ah ah bu bañ a soob xam nga métti na waa gis nga su mat laay tooyee tey mooy kër yëpp xam na ndox rek. ak néeg yëpp looy wax wax ngeen. wala lii di kër. ah lii kay métti na ah mooy rek amatoo koo ne léegi xam nga loolu mooy amatuma ku ma ne yàlla na yàlla indi soo wéree lii dañu soxla ñu ne woon ñu problème am na tey day taw. mais fu jaar. Momar. tey lii man dafa metti rek lii. plan hors sec. ah man sama koñu kër nag a ngi nii nag ñëpp gis nañ ma ni ma mel ñàcc bi mënul taxe ma def ah Malick sama kër a ngi nee de seen leen gis ngeen leen mooy sama kër fépp ndox la eh baara fii xoola baar xoola guy manko guy manko seen kër daa fees del lii kenn da koo mas a Gracias a los Elhadji Mbaye mi ngi ñëw di wut Elhadji bu tax baaw Modou foofu

Wow! ñu ne man appliqué sa la ko doon def. Bismillahirrahmanirrahim. Kébé Attané bi ñu wax mais il faut ñuy wax quand même xoolal Moussa Samba ah. la mu wax. Comment ngeen bëggee événement. ba léegi ngeen dem ku ma leen tegoon ne leen ngeen dem di yëkkati machine bi di ko yóbbu ngeen di ma toog. noo leen dem. eh allo. trop. essan gàcce leen rey essan gàcce moo leen rey Cheikh Gningue ngay toog. moom Cheikh Gningue Cheikh Gningue woote woo woo kii woo kii amin ndaw amin amin waa ñu dal waa ji am na solo ah ñun dañoo ngi nii ci ama tornade yi laaw noob noob daa ko defoo yéen seen ko tànk ah mais daal leen machine bi tànk mais mënuñu ko fu muy jaar Modou Modou Fo Modou Fo daa bëri daa am pax de. yëpp te buñ la woowee téléphone doo jël danga ko dégg ña nga fi faroon yenu leen ci mbedd bu fële ñu ngi lay jàmbat nee nañ yàq sa ginnaaw raay sa teer bii mi di daggee ci raay bi ci ginnaaw raay c'est pas juste comme ila walaay wasi wool bam wool kay léegi solo jëf machine fekk ma ko mu tax man lay fàcc mu taw ni moom bilaay walaay métti

yàlla baabam nag alaal la ko war a ji problème boobu